plage bu njool Ndiolmane foofee nag ñu daal di koy taaral ngir nag askan wa fay yeewoo ñëw di mën a féexal seen xol boobu ba tey nag mën nañ ne saa su ne plage ba dafay fees dell xale mag ndaw góor ak jigéen ñoom ñëpp nag dañuy teewee li nga xamante ne moom mooy boobee plage nekk foofee ca Bargny ab jéyee nag moo fa daal di am gannaaw nag ab xale daal di fay lapp mu nekk nag ku njëkk ku fa ñàkk bakkanam moom xale bi le sax dañoo jàpp ne mi ngi soog a am di sangu ànd ak ay xaritam foofee nag la fa bakkanam daal di dese loole nag nekk dese bu njëkk bu ñu nemmeeku foofee ca plage bu Bargny gis nañ ne tamit boobee plage gannaaw ñu daal di ko fay taxawal teg fa ay metre nageur ba tey képp ku yewoo foofee ca Bargny saa su nekk boo bëggee féexal sa xol da ngay wutali ci boobee plage waaye nag ñi nga xamante ne ñoom ñooy maître nageur yi ñi ngi amal seen liggéey ci anam bu mucc ayib xanaa rek gën a ñaax ñi nga xamante ngir nag ñu gën a bàyyi xel li nga xamante ne moom mooy géej bi surtout xale yi nga xamante ne dañuy dem te yenn saa yi duñ leen yëg wala sax buñ leen yëgee amaana nañuy sangoo ci géej ga mën na leen indil ay loraange kii nag daal di ñàkk ci bakkanam nekk ab prox ndoll ngir nag ñu daal di gën a sensibiliser ñi di waajur yi waaye it autorités yi gën a taxawu ñu nekk foofee ca plage ba ngir nag ñoom maître nageur yi ñu daal di amal seen liggéey bu mucc ayib a ci li nga xamante ne euh, moom mooy géej gi surtout ci vacances yi ñu nekk nga xamante ne nag saa su ne dañuy faral di wutali géej foofee ca Bargny nag jéye ju njëkk moo fa daal di ëm gannaaw nag benn weer képp ñu daal di door lii du vacances yi ñu bàyyi si xel bu baax a baax